délégation à l'entrepreneuriat rapide fësal na li nga xam ne moo di rapport d'activité am mu doon rapport boo xam ne dafay dellu waat ci parcours bi les structure ci juróom-benni at yi ñu weesu. juróom-benni at ci ci existence su DER di fàttali ni DER mooy li nga xamante ni chef de l'État daf ko tëral. ci wàllum PSE bi pour taxawu ñi nga xamante ni ah dañoo soxla am financement maanaam am liggéey ci wàllum entrepreneuriat. wax xool firndeel li ñuy xamante ni DER def na ko ak li nga xamante ni war nañ ko yokk ci suñu liggéey ci li nga xamante ni. ci orientation PSE ñu ngi koy xaar ak PAP 3 bi tey jii ñu ñëw toog ak yéen pour indil leen li nga xamante ni wan leen li nga xamante ni moom la DER liggéey ci biir. ba mu tàmbalee liggéey bi ci atum 2018 DER amal na ci lu toll 260 000 financements ci ay ndaw ak i jigéen ci njëg bu toll ci 125 milliards de francs CFA. ndax en six années d'existence tey jii c'est plus de 260 000 bénéficiaires yoo xamante ni DER jàppale na leen du ñu nitee sax léegi bénéficiaire dañu naan initiative entrepreneuriale ndax bu ñu nee bénéficiaire rek dafa mel ni benn nit la ñu wax. ndax suñu économie ak suñu dëkk ni mu Afrique ni mu ni mu ni mu taxawoo xam nga ni ku jàppale benn nit jàppale nga ñeneen ci ginnaaw moo tax ñuy wax initiative entrepreneuriale. bu ñu sukkandikoo ci directrice générale bi demande bi ñu ngi koy xayma jamono ji ci 500 milliards de francs CFA. loolu moo waral ñu teg ay jëmtukaay yoo xam ni dina boobu la demande. ndax demande bi li ñuy xaar ci ñun ñi nekk ci bunt bi di fëgg bare na boo xamante ni boo ko xaymaa toll na tey jii ci plus de 500 milliards. ñu wax ni loolu nag lan moo ñuy permettre ñu mën ko absorber mooy ñu orienter suñu demande bi pour mun ko am une demande maîtrisée tamit. mais ñu fexe ba nga xam te ni demande bi day doo dootuñu bàyyi demande bi di ñëw noonu rek ndax loolu yëpp ay frustration la mais pour mun a topp entrepreneur yi jàppale leen ba ñu yegg fi ñu jëm. DER mu ngi ci 46 départements yi nekk ci biir Sénégal yëpp juróom-benn yeet mu nekk ci liggéey bi bile structure gunge na ay junniy junniy entrepreneur moo xam ci bépp filière bu ñu mënti yëngu.